jox noonu waaye man la mu wax noonu mënuma koo jàllal fii. lan la lan la waxal. ah déet <laughs> fu mu fu wax ji féete. nee ñaareel la lay may de. Eh! rakkam la lay jox ah! comme ñaareel. <laughs> jot na nag <laughs> da da gis jabaru Sadio Mané bi naan nii Sadio nekk ci suuf naan nii ñu ne ko. loolu. yow jaara gaaw. ah gis nga. yow jaara xala xala xala xala Babacar la moom. <laughs> bàyyi leen ñaanco ndax da ñaanco jamono ji ah, moo téye beneen terrain bi waaw waaw ah, beneen terrain bi moom <laughs> <laughs> ñaanco ko téye instant bi alors Pa Moussa mhm. Sori Ibrahima Dansokho mu ne le conseil constitutionnel a un récapitulatif des euh, parrainages bon affaire day da waaw récap mhm. des parrainages mhm. mu ne quid de Sonko et le contentieux sera de euh, de nouveau débouté moom peut-être li muy laaj mooy compris li muy laaj mooy conseil constitutionnel def na situation mooy sans communiqué bi ma doon junj mm-hmm. wax ñi nekk def récap beeg et tout mm-hmm. léegi mu ne Ousmane Sonko fañ ko dugal mooy ci dossier incomplet su mm-hmm. dee recours bi dugg na fi fan lay aboutir fi muy aboutir ci li muy aboutir xam nga xam nga xam nga ndax du ñu yeggaat ci débouté waat Sonko loolu lay wax euh, bu dee volonté gars yi moom. Mm. Euh, yaa ma gën a xam. mais mm. mais mais mais fi mu fi muy aboutir mooy li ma doon wax sànq c'est-à-dire euh, conseil constitutionnel. conformité document yi la doon xool benn document ci biir document yi la doon xool le fond. benn document ci neuf documents yi. Mm. la doon xool le fond muy les parrainages. les huit autres conformité bi rek lañ doon xool mais xooluñu woon fond bi. al comme que confo maanaam existence am. lan doon xool léegi ci biir loolu lanu ne gisuñu existence su attestation. Hmm. mais la justification de l' absence mi ngi dans le fond. Hmm. kon bu ñu la le fond euh, xëy xëy na dinañ comprendre. lan moo waral absence bi et bu boobaa. Hmm. ils y trouveront un exploit d'huissier qui constate que ni. ñàkk jox attestation bi justifier ko ci absence su Ousmane Sonko ci biir fichier bi. justice nee na absence am. c'est une euh, radiation irrégulière, irrégulière ouais. et que cette euh, euh, radiation irrégulière n'est pas la faute de Ousmane Sonko foofu nag. Hmm. lañ doon wax fii lay amee sens. fii lay amee sens. maanaam li li li li li gars yi doon rappelé ci ay jurisprudence 98 98 foofu lay amee sens. bu insa parce que le fond. ci lañ koy aborder dañuy apprécier waay. alors kii euh, Gamou Diop je crois. Mhm. oui moom lu muy laajte mooy mu ne existe une loi. mmh. pour destituer un président ou des, institu euh, des institutions prises en flagrant délit de non-respect de la loi et de la euh, constitution. waaw euh, xam nga ñun suñu législation dafa xaw a doy waar ci côté boobu. Mm. responsabilité président mu ngi yem ci benn infraction. Mm. qui n'est pas définie muy la haute trahison. ce mm. pas défini. mais effectivement. Oui. président moom moo waat. ne moom day respecter et faire respecter. la loi. waaw kon kay faire respecter boobu noonu bu amee ci benn institution bu mu feerul respecter mm. responsabilité am day engagé wu day trahir serment am trahison serment. Mm. jàpp naa ne haute trahison la. dégg nga wax. waaw haute trahison trahir serment. Mm. pour man haute trahison la. waaw. alors mhm. maa ngi la ko doon wax sànq Moussa Cissé moom moo koy bindaat. bu waa dund xam naa ci candidat am di Madana kan mi nga xam te ne sànq maa ngi lay wax ni. Mhm. ñu ngi doon def le point. Mhm. ñoom ak yeneen candidats yi ñuural. ay situation mooy seen dossier yi nga xam te ne jot ñu ko laal. exploité wuñ ko effectivement mooy clé USB bi. te xam nga ñoom li yomb rek dañu ñëw rek ne waaw. ñoom tamit recalé nañ leen incomplet wala. invalider leen alors que ñoom jotuñu sax càmbar seeni dossier parce que clé ba lañ na mënuñu ko exploiter. ñoom seen sort finalement loolu loolu loolu laay wax ne daal kan maa ngi koy tudd maa ngi tudd Mouhamed euh, Fadel Koné également ci ñoom la bokk. Mhm. am na ñeneen ci ay candidats yoo xam ne aussi même situation. mais loolu loolu laay wax ne. oui défaut d'exploitation clé bi c'est imputable à qui. justement à qui leen jox clé bi xanaa. mais pas à eux. or bul fàtte ne gars yi yóbbaale wuñ clé yi loolu buñ ko fàtte. Hmm. ñoom yóbbaale wuñ seen i clé foofu lañ leen ko selele jox leen ko Ousmane looloo looloo rendre affaire bi bizarre. Hmm. clé bi ñuy wax naan la ay euh, mënoo ko exploité ñoom fa leen ko baax. Hmm. ñu selel leen ko jox leen décharge kayit lañ yóbbaale bu ñu dellu si ñu dugal clé boobu noonu. Hmm. nga gis ci loo gisul woon kan ngay imputer responsabilité bi. ñoom ñoom ñoom euh, coalition dund. Hmm. ba ñuy déposé ji est-ce que parce que boobu dégg léegi dugal kele bi. waaye lan moo tax waxuñu leen ne mënuñu woon exploiter moment boobu. justement bàyyi la ba nga dem ba ñëwaat ñu ne luy loolu. luy loolu ñoom it la war ci ñoom dugal recours. mais xam nga xam nga xam nga booy déposé ji euh, sa clé bi koy dugal bañ gis. Hmm. après ñu sele ko dugal ko ci enveloppe kii ko. jox la décharge nga yóbbu sa këy. bàyyi fa clé hmm. boo ñëwaatee. ñu ne la clé bi mënuñ ko exploiter da nga ne ko mais keroog exploiter war ngeen ko sëñ bi loolooy wax ji. loolooy wax ji ah. alors Pa Moussa am na ñuy ragal dublon ëllëg bu ñuy càmbar bu Diomaye wala ñoom Mimi Touré. du ñàkkaat lim ba waaw du ñàkkaat. te buñ ko amee ci saa si rek motif la de rejet. bu dee mëtaloo attention. mooy mën nga am doublon te du la teree euh, mëtal. ah waaw comme par exemple Diomaye. bu la andi bu la andilee cent mil waay quatre mille nga ci soxla de. Ah, boo ci génnee noonu lay demee ñii jàpp ne non 4000 et nangam boobu lim bi ñu ko wax rek. moom la ko am rek yow. maanaam bu bu la joomaay cent 100000. ñu génne ci 50000 mille oui yoo xam ne ci na 4000. na 4000 yi mat na 4000 yi mat donc noonu lay demee. waaw pas liñ ko laaj rek mu indi kët lool rek teg. non non non non non cest na ko am. ci anam bu régulier mu dugal mille nangam nangam am na bu ñu doon bañ mu ëpp. Hmm. mais Benno Bokk Yaakaar dañoo ëppale woon 2022. waaw <laughs> justement am ah na jurisprudence bi ñuy dugal ah. ci pàcc boobu alors euh, équipe mu ngi ñuy topp neen nañu wax ci xalifa Sall mi copier <laughs> programme Ousmane Sonko. waa waaw waaw maa ngi gis boobu mais bon j'ai pas encore suivi. Euh, <laughs> euh, gis nga ah. programme ko wax moom. programme mu Ousmane Sonko ci 2019. man ku ko copier dinaa ko xam ndax je l'ai lu créé à la main. c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. d'accord donc ku ko ku ko copier. moom dinaa dinaa leen taxawaat fii ne leen lii ak lii ak lii fii la jógee parce que Ousmane Sonko génneegul pré kii de est-ce que xam nañ loolu. génneegul. génneegul programme. Hmm. junjoon na ko daal. waaw mënu mënuñ ko mënuñ ko copier lu ñu xamagul. Hmm. peut-être bu 2019 ba nag jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci. jot c'était assez séduisant ku ko copier tamit dinaa dinaa ne leen parti bii mi ngi woon ci parti beewu Sonko. Hmm. waaw. <laughs> Pa Moussa awaloo ne depuis Washington DC mu ne demee tamit loterie lay doon. déedéet alors que daf ko waroon doonaat du ko doon. waaw ah, du ko doon de. loterie ba ñu woon loterie ba woon la ñu la ñu reconduire mais loolu du yoon tamit ku mel ni docteur Abdourahmane Diouf loolu mais il a raison. que je suis entièrement d'accord avec docteur Abdourahmane Diouf donte sax le principe de la loterie man d'accord ci. Hmm. mais loterie mooy loterie rek. loterie mooy loterie rek. mais noo mën mënoon def à la place. mais mais on peut on pouvait choisir une euh, beneen formule meilleure. mooy d'abord. yow man bu ma la parrainé le par un jeu de hasard ki nga xamante ne feneen la foree samay données jiitu la ci loterie bi. Hmm. sama yow sa bos mooy baax man mi ma yow mi ma parrainé justement sa bos du baax doublon lay doon. ah. Eh di donc retrait bi ak dépôt bi assujettir ko ak déposer caution. Ouais. c'est-à-dire que les candidats soient beaucoup plus sérieux léegi bon. quand même 2019 ku njëkk a ñëw la woon. Hmm. on s' est rendu compte que Mimi Touré ak Malick euh, on failli en en main. ñu andiwaat euh, loterie bi loterie bi je considère que ni c' est un peu hasardeux nañu xoolaat beneen formule. mais hmm. loterie bi doxul. ok hmm. xam naa ne day Diop mii. question bi intéressé na ko. nee na procédure bi procédure bi pour lancer li nga xam te mooy haute trahison su fekkee c' est prouvé. naka lay demee. bon xam naa ne daal. waaw wax na dëgg kay. <laughs> c'est-à-dire xam nga xam nga. moom gàmmu Diop loolu daal yitteel na ko. wax nañ dëgg wax nañ dëgg <laughs> trahison yi dafa bëri si réew mi. Euh, pa Ousmane boobu. Hmm. du doon procédure boo xamante ne l'action publique. Hmm. et mise en mouvement par le procureur. Hmm. ça n'aurait pas de sens. le procureur qui dépend de l'exécutif. Ah. nga ñëw fekkaat ko foofu nekkoon na mise en accusation lay tudd. c'est l'Assemblée nationale moom mooy def mise en ah de l'Assemblée nationale. et que la constitution du tribunal est hybride ay député dañuy siéger. Hmm. ci haute cour de justice. c'est la haute cour. haute de cour mise en accusation bi. assemblée haute cour de justice je pense est-ce que du moom moo jugé woon Idrissa Seck. waaye ci à l'époque waaw ci euh, kii chantier de Thiès wala. chantier euh, à l'époque je pense c'était Cheikh Tidiane Diakhaté. Hmm. qui fut après euh, président du conseil constitutionnel en 2012. Mm. mari de Seynabou Ndiaye Diakhaté euh, de l'OFNAC ah, euh, donc mise en accusation bi assemblée lay jóge mm. après euh, parquet bi du moom mooy déclencher l'action publique mais moo koy exercer mm. ju ju juridiction bi composition tribunal bi day amaale ay député yuy recyclé wu ci kii maintenant évoluer lan mooy haute trahison mm. est-ce que ces actes sont constitutifs d'haute trahison Euh, je pense que nii après les élections hmm. bu ñu naree rétablir l' état de droit au Sénégal. Hmm. mënul ñàkk. mënul ñàkk déedéet. Cheikh Kébé nee na je pense que Diomaye six mille six cent la am droit déposer le nombre de de de yu ñu ko laaj pour mottali. six mille six cent. non la am droit. quatre nombre de doublons. non doucement. six mille six cent six mille la am. waaw doublon mais teewul de six mille six cent la am waaw waaw. la am droit déposer le nombre de doublons man j'ai pas compris. ce qu'il a voulu li mu war a Cheikh Kébé. Euh, peut être xam xëy na mu non du du am 4000 et quelques la war a déposer. pour mu 4000 moom la war a mottali. waa parce que. léegi il en avait léegi li mu bëgg a wax. si je si ma mémoire est euh, si c'est exactement ce qu'il veut dire. Hmm. mooy li mu am xam nga mënoo am droit déposer 1 million. Hmm. mais nombre de doublons bi. pour permettre la nga bon je pense que c'est waaw man comprendre lu mu wax Ibrahima lii sa question bi ngay wax ñëwaat ci ñu mën a xam nee na posé naa sama question ci l'ai posé xaw ma plus d'une dizaine de fois oui mais ah, waaw waaw loolu la mais gisuma ko xam nga message dafay bëri aussi su fekkee Ibrahima lii mën nga ñëwaat ci sa question bi euh, suñ ci jotee rek ñu mën ko dugal mu ne le contumax <laughs> le contumax ma wax loolu mu ne est-ce possible en 2024 une présidentielle euh, un bon un président destitue le la cour suprême xam naa la bëggoon wax et le conseil constitutionnel nee na est-ce possible en deux mille vingt quatre. mu ne est-ce que. président boo xam ne dafay destituer wala dafa bëgg a wax tas le conseil constitutionnel et la cour. conseil suprême. bon président moom moo leen di nommer di loolu. loolu loolu xanaa ay réforme lay junj boobu président mooy nommé cinq membres yi xam nga léegi bu njëkk ba sept cinq sages lañ doon wax hmm. léegi sept sages la président assemblée nationale day nommé aussi les deux je pense mais mën nañ ko def plus largement c'est-à-dire sept sages yi hmm. président mën na ci nommé trois opposition nommé deux assemblée ainsi de suite ça pouvait être comme ça société civile mais bon voilà c'est la le président hmm. qui a la haute main sur euh, Euh, la Cour suprême parce que c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Ce sont les réformes à entamer. D'accord kii obligation la lay laaj ndax obligation ci Ousmane Sonko mu fay Mame Mbaye Niang deux cent millions yi. dommage et bon euh, tant que la décision de justice euh, est définitive mais. Mm. diffamation deux cent mille. mais en tout cas Ousmane Sonko ko du laal fukki dërëm bu doon manit la du laal fukki dërëm contrainte par corps amu ci mais contrainte tamit. Hmm. mais bon décision de justice bi loolu la wax mais tout le monde sait que ce n'est pas li ci li ci yi. oui c'était l'élimination politique. et d'ailleurs euh, Mambay demoon na pour saisir këram apparemment. waaw loolu waxoon nañ dugal procédure bi. c'est là alors Aboubacar Diallo ah, di sama naataango bi ñu nekkaloon Dakar TV mu ngi lay nuyu Pa Moussa. Ah, ah nee na mu mu ah. fàttali la jaan la ñuy. reeteet waaw Oustaz Oustaz Boubacar Cëslaay li ah. <laughs> Cëslaay maa ngi <laughs> ba leen Cëslaay waaw nee na jaan la ñuy reeteet. ah. reetet waaw. yaa fi waxoon reetet. non doo daam daam moo koy wax. <laughs> waaw daam mooy wax reetet mooy nee na jaan la ñuy reetet. ah, ah. xam naa loolu moom. na ko wax dàmbooj dàmbooj daal bu actualité amee. <laughs> waaw moom da koy tooj càmbar ko kii ko. loolu loolu daal la tuddee reetet moom la loolu. daam day revue de presse revue sax da di reetet man bëgg reetetu daam. xaw ma noonu la xaw ma du noonu mais j'adore ce qu'il fait. waaw ce qu'il fait waaw loolu am na solo. anglophone <laughs> anglophone. alors je pense que Pa Moussa on a fait le tour des question bu mu des peut-être Ibrahima bi ma doon wax sànq bon j'ai pas vu sa question euh, yi ñu jot a gis yooyu rek laa ci yooyu rek laa taxaw je pense que ça devrait aller quoi bon ñu xool si on a beneen laaj laataa ñoo ñoo ñoo tàggatoo. Euh, waxal euh, Pa Moussa <laughs> ah waaw Pa Moussa Mariam Sarr bu Sonko nee na sa yére tabaski moom moo koy ñaw. Mariam Sarr d'accord waaw bu Sonko. Ah. macha allah. parce que <laughs> fekk Ousmane Sonko président. amiin <laughs> waaw. waaw yéen a. si Diomaye est élu dans quel cas Sonko pourra devenir président ou faudra t comme Senghor et Mamadou Dia. waaw loolu loolu bokkoon na ci samay kii. mais mais mais. xam nga yaakaar wax naan. waaaa euh, parce que bon euh, euh, régime parlementaire c'est le premier ministre qui dirige mm. comme Senghor looloo ko metti woon ci Mamadou ba mm. mu jéegi parce que Mamadou Dia moom moo yoroon l'essentiel du pouvoir mm. mais man je préconise une transition une transition de parce que situation yu ñu war a rétablir ci réew mi pour mën a am dëgg-dëgg élection moom moo moom moo moom moo salfaañeew hmm. mooy euh, détenu politique yi bëri nañ ñu dellu si waat acteur politique yi ñu ñu hmm. bëgg a néewal doole bëri nañ ñu dellu si ci euh, kii bi yooyu noonu yëpp euh, foog naa ne une transition ça peut faire l'affaire oui Diomaye transition Cheikh Tidiane transition hmm. voilà voilà Saalum Patriote neen mu ngi lay nuyu. Saalum Patriote mbokkum mbokkum Saalum Saalum bi. ah macha allah waaw waaw nee na mu ngi lay nuyu mbokk lan. waaw Saalum Saalum. alors Serigne nee mu ngi lay laaj Karim lu muy xaar pour ñëw Sénégal. man de nee naa la bu ma ko gisee laay gëm ne candidat la bu ma ko gisee. <laughs> moom moom moom salaaw. xanaa nga am information. bu non bu ma ko gisee man bu ma gisee Karim. Hmm. non parce que wóoloogul. ah wóoloogul Karim non moom moo wóoloogul ne dina bokk. Hmm. moom xam naa ne bëgg na. Hmm. mais tant que gisul turam nii mu leer nañ ba pare li mu bëgg am na loo xamante ne mu ngi ko bëgg gis pour ñëw bu dee loolu lay xaar du ñëw. mooy donc comme ni Pastef te situation bi nii PDS <laughs> te te ndengeñee noonu kaa bi noonu du yomb rek. yow ma mënta nekk nag waaye du yomb rek. Hmm. alors Ibrahima lii ñëwaat na ma question était de savoir est-ce que ce sont les sept sages qui vont statuer sur la candidature de Ousmane Sonko si oui. bay est-ce par vote majoritaire. effectivement. mais kenn du xam kan moo wax lii kenn du xam kan moo wax lee justement loolu laa doon keroog naan la. est-ce que war ñu yegg ci ay réformes yu ñu tey boo jëlee. le système américain le système américain. laa bëggoon wax parce que dafa am loolu ñu wooyee voix discordante. voilà parce que juge yëpp. buñ ne la lii mooy décision bi Ousmane Sonko bokk na. mais il y avait des voix tel tel tel pas d'accord. mais niveau démocratique yooyu et c'est et c'est oh. soo koy xool. Euh, ci ci ci c'est-à-dire réew yooyu. looloo tax ñuy développé ni ñuy rendre les justice di xam looloo tax dem looloo gis nga nañ toog fii rek di xas tubaab yi nangam ñoom dañuy dem de. sori nañ parce que dañoo respecter les règles du jeu démocratique. man il m'arrivait ma dem di xool décision de justice yu ñuy rendre nga xool comme ni nga waxee nii voie discordante xamoon naa benn. gars yi di tàmbali. ci ndorteel ci ndorteel ba la baa Badio wax. te wax bi am. gars yi di tàmbali. ci ndorteel ba ci ndorteel ba la Badio wax. te wax bi am na lu mu junjoon ci kaw Sonko. waaw mooy introduction ba. waa ba mu naan d'abord neuf pièces yi la ñuy xool laataa ñoo jàll ci. donc hmm. foofu noonu di nga njortu ne ku pièce am motul neuf du fa yegg. du yegg est-ce que décision a été collégiale. point d'interrogation en principe ça doit l'être parce que c'est ce sont des décisions du conseil ouais. mais voilà muy noonu c'est une question très très très très importante bi mu posé nii de même que ñeneen ñi aussi ah ñu jot a posé ñëpp ah ñu ngi leen di euh, bëgg bu bu baax ah Pa Moussa pense que gàmm <laughs> Diop ñëwaat na de <laughs> président xam naa gàmm yow moom ma Pa Moussa dinañ la defal émission spéciale ci destitution <laughs> président ak ñeneen ñi nga xam jot nañu am yenn ndombal tànk yenn juridiction la ñu koy composé. Mhm. ak naka la ñuy. Euh, arriver à mettre en accusation. Oui. ce sont des procédures dérogatoires yoo xamante ne war nañ ci war na effectivement euh, c'est très important ah. parce que tamit ñi ñuy ñi hmm. ba ci yenn temps yi ah mais à un hmm. certain moment hmm. foog ñu foog ñu taxaw aussi euh, càmbar seen i cas tamit c'est normal léegi mu ne ndax les membre du conseil constitutionnel mun nañ leen poursuivre maanaam le fait ñu violé li nga xam ne moo aju ci dossier yi ñu scellé gis naa ku mel ni professeur Ngouda Mboup invoqué article bu punir soo mais fekkee dossier mais mais mais mais mais pas Ousmane loolu nga ce n'est pas pour rien que Mimi Touré annonce une plainte contre X waaye parce que loolu bokkul dara ak nekk dans l'exercice euh, de tes prérogatives nekkul loolu oui peut-être ki koy laaj xëy na li ko jaaxal mooy ku mel ni maître Ciré door Ly nekk mm-hmm. euh, mandataire Ousmane Sonko xam lu mel noonu te ba mm-hmm. fii dégguñu dara lu ñu intenté jëm ci sanctionner lu mel noonu. bon mais de toute façon euh, xëy na ku ci nekk rek tu juges de l'opportunité de ce que tu dois faire. Mm. Euh, bon maintenant s'ils jugent opportun de le faire ils le feront. Mm. Euh, que c'est prioritaire de faire focus sur la candidature de Ousmane Sonko. Mm. c'est ce qu'ils vont faire et en tout état de cause loolu moom euh, c'est une infraction flagrante quand même. Ouais. en tout cas euh, Pa Moussa yaakaar naa yegg si nañu. ci cappaandaw ci cappaandaw gi ah. mm-hmm. gërëm gars bu baax. waaw ñu ah. doon ñu doon suivre. ah ñoom euh, Ndaw. Ah. Ndaw Victor Ali. waaw maa koy euh, siyaar bu baax a baax. Sori Ibrahima Dansokho dafa mel ni question la doon ñëw de. Lamine Guèye. <laughs> Keba Dramé. Euh, Bachir Ndoye nee na son dafa mel ni son bi amoon na problème de. ah waaw waaw xam naa ci njëlbeen bi la waaw Sénégal Mouhamadou Moustapha Touré. Eh, gars yi ñu ngi leen di nuyu Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Mm. gars yi ñu ngi leen di nuyu Bachir Silla ñëpp ñi euh, nekkoon ci euh, ci live bi ah. di di di di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax. di nuyu diaspora bi aussi. bu baax euh, Pa Ousmane <laughs> dafa dafa dafa am sama ay gars yu nekk fële Paris Défense. Paris Défense waaw ay ay ay mécaniciens yu nekk fii la. Hmm. mais dañu am foofu atelier tamit. d'accord Mass Diop atelier Mass Diop. ca hmm, Paris hmm. la Défense ñoom Doudou moto sama gars yi. Doudou moto maa ngi leen di siyaar bu baax Mamadou Diop. waaw ah, kooku kooku kooku sama waay la moo Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom Doudou Socé hmm. Babacar Diop Baye Mbaye Diop gars yi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar hmm. mais du ma fàtte sama gars yi nekk fii nag ñoom hmm. Serigne ñoom Modou bu ndaw Modou bu ndaw benn défenant la mais moo dàq defar moto Sénégal mais kenn gënu koo doon défenant <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar ak Jean borom Palmarin borom Palmarin foog ñu dem Palmarin ah, Ousmane waaw ah xam nga foofu waaw daal di si tu connais c'est ce sont des endroits cool ah, ñu dem foofu ñu ngi leen di nuyu ñëpp leen char euh, mais ñoo ñëpp sous la supervision de du Diop ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi saa ñoo ñu ni ñu bàyyee xel seen réew hmm. xam naa tukki bi ak gis de niveau de développement ñenn ñi hmm. te xam ne ndeysaan ñii ëpp ñu dara si ëpp lu ñu leen dara teewut mu ngi nii ñu ngi nekk fii di. Euh, waaw dóor ak teg xel ak yooyu. donc xam naa ne diaspora bi seen engagement. parfois mm. Mm. damay jéem a xool analyser phénomène bi ak seen adhésion bu massive ci Pastef. dama koy parfois di jéem a xool les soubassement démb maa ngi gis waa. Belgique démb xaw ma barki démb. Mm. ñu ngi def benn genre dîner de gala. Mm. maa ngi nuyu euh, waa Pastef Belgique ñoom Mbayang Dramé. Mm. ñoom bàcc sama gars yi maa ngi leen di nuyu di leen char bu baax baaxa baax ma gis Serigne Abdou Mbacké ñëwaale foofu noonu donc euh, loolu foog naa ne yéen non non euh, ah. mooy Serigne Ousmane Sonko bi. ah d'accord waaw waaw bu bu bu bu Daaru Muxti. mais loolu yéen journalistes yi. yéen a ci war a taxaw di def ay enquête en profondeur. lan moo waral. cette adhésion de la diaspora à la cause de Ousmane Sonko. Ah, yooyu noonu yëpp. Euh, journalistes yi yéen tamit da ngeen bàyyi yooyu de. da ngeen def ay documentaire ay enquêtes en profondeur. <laughs> gas ah, hmm? affaire yi. mais bon de toute façon en tout cas. Ah, euh, ouais, on, on incha allah. incha allah Plus tamit. pointe à religion ah. oui Radar Plus c'est en fin de semaine wala bu amee. mën na doon suba nag. même <laughs> moom ça dépend ci actualité bi li muy laaj rek. mi ngi ça ci actualité bi li muy laaj. Pa waaw ma bi ñuy tàmbali du maa ngi la koy junj. fa lañ tàmbalee fa lañ tëye di la ci tuddal ku mel ni Jibril Jibril waaw. ah waaw <laughs> Ndeye Sow Leila. Mm-hmm. ay ñoom Abdou Aziz. Mm-hmm. Seck. Mm-hmm. annoncé nañ la 16. Abdou Aziz Seck dinañ jégalu aussi. moom euh, mu ngi nekk euh, convergence des cadres. des cadres je connais te ñi may wax ni ay cadres lañ. ko nekk ci APR. dañoo woote conférence de gis naan nañoo. dugg dañoo woote gatsa gatsa. ragal naa ko de nii may gis nii. <laughs> waa APR ay woote gatsa gatsa gën a ñoom li nekk seen bopp ak orientation yi ñu am. il faut candidat bi ubbeeku. xam xam naa Jibril Bey xam naa xam naa xam naa Abdoul Aziz Seck dinaa leen woo. waaw dinaa xool seen gatsa gatsa bi ñuy woote jëmale ko ci APR. waa APR a nekk ci gatsa saa yi àdduna doy na waar de. ñoom gis naguñ pouvoir bi commencé di di di di di front. <laughs> gis nga xool maa ngi for léegi ñu bind pour une meilleure implication des cadres dans la marche politique de l'Alliance pour la République APR. Mmh. le CROC. nu leen hmm. tuddee seen bopp. Hmm. cercle de réflexion et d'orientation des cadres. COD prend le relais et organise le 16 janvier. une journée yeah. de réflexion. xam naa bu ci génne rek ci lañ naan opposition waaye ba ma leen gisee ñu leen di gazé ca buntu palais. <laughs> ca laa xam ne oh. c'est trop risque affaire a ngi dem ñu ngay da ngay gat sa gat sa. ña ngay woote résistance teet teet teet waa ah ah du mën a dox waa affaire ñooy woote résistance yi. ñooy. ñooy affaire ñooy marche. dañu <laughs> xelal kenn te sànq yaa ngi mën nañ comprendre parce que Amadou Ba du affaire de souche. non c'est dafa wàlliyaan si. am loo xam depuis depuis. Mhm. bu yàgg la ànd ak mais nag. gis nga gis nga être candidat aussi ah. la plus opposition bi gën a mag ci Amadou Ba jamono ji. mi ngi ci biiram <laughs> opposition bi gën metti c'est au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar gis nga ñi dañoo am kii wax rek mais ñu bari ñu ngi foofu toog ne tekk <laughs> yëkkatiwuñ la petit doit pour Amadou Ba ça alors donc président Macky Sall moom it naka ngay ne kii mooy seen sama candidat mi ngi nii hmm. kii laa bëgg ngeen jox ko réew mi te yow joxoo ko sax parti bi ah, ah ñun naka la ñuy wóoloo jox Amadou Ba suñu réew te yow Macky Sall joxoo ko sax wóoluwoo ko sax pour jox sa parti bi parce que moom moom il est toujours le président du parti bi ah tamit soxla na parti bi ah soxlaw ko ah dama laaj ah, waaw bu dee soxlaw ko aussi pourquoi il il il candidatait à la candidature de sa parti là. oui yaa ko a accepté l'investiture de ce parti là. parce que investir nga doon candidat n'a rien à voir avec. waa parti na enquête te ni mais. Euh, du yaa fi wax état parti dañu war a tàggoog moom. non doucement est-ce que Ba n'a pas non doucement c'est-à-dire boo bokkul de bul jaxase affaire yi. Ah, c'est-à-dire Macky mi nga xamante parti bi mën na la yóbbu parce que ci parti ngay sukkandiku xëy na pour yóbbu pour dem. mais nee naa la tamit parti du dara ci élection. justement loolu laay wax. waxuma la Sonko mais Diomaye bu daje woon ak Amadou mën na ko sëlëm taf taf en deux deux heures de temps match bi tas. Hmm. et Diomaye est censé être appartenir à un parti dissous donc il n'a pas de parti mm. yow nga am parti ñu defal l'affaire gis nga mais tu as vu que il y a des gens qui n'ont pas de parti oui. et qui ont passé d'office le parrainage au détriment des gens qui ont deux partis mm. donc présidentiel du kese mbirum parti mais dafa xaw a doy waar rek mm. naka la Macky Sall nañu nañu dénk Amadou Ba réew mi te moom wóolu ko pour dénk ko wóolu ko pour dénk ko parti bi <laughs> en tout cas. Ah, <laughs> dinañ ah. Ah, ci am lu c'est leer <laughs> bàyyi waa xel waa Croc xam naa ne moom jibi bërëb bu ñu dajawaat ak moom. dañ xaw a Croc waa APR ñooy marche. Croc sax baat bi baat bi quoi Croc. j'espère que le prêtre croquer quoi Croc monsieur. <laughs> j'espère j'espère. loolu laa la Croc. dafa am lu ñu bëgg a croquer daal il faut croquer <laughs> j'espère que le le préfet va leen autoriser ah. ñu autoriser ñu manifester ñu ah, manifester. waaw ah, ah, foog ñu manifester kay. jata gaaw. laay la ku ma waxoon ne Djibril Bey dina teelee dem ni opposition bay mars bay ko roke waate <laughs> Abdou Aziz. Seck ak Ndeesaw Leela. Ndeesaw Leela. moo leen jigéenal seen biir. <laughs> bu may bu ku ma ne woon dinañ teel a garsa garsaan yi. ah waaw ah loolu dinañ ko bàyyi xol ko en tout cas doy na waar merci beaucoup Pa Moussa ñu gërëmaale aussi suñu partenaire. baaw naan ah baaw naan au plaisir. bi nga xam ne moo ñu accompagner. lundi bu jot ci mm. waxtu wi donc loolu am na solo ñu bàyyi waale ko xel. donc ñu gërëm gaa yëpp ah Pa Moussa. franchement li ma jot ci ay message ci ay nit. Mm. dafay jafe nga mu Mariam Sarr parce que dañu sakkan lool macha allah. Dumbe Saliou mais ñoom ñëpp xam nañ seen bopp. waaw waaw ay chocoli ñeneen waaw. waaw waaw waaw sama ah. ñooñu ñëpp maa ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziar bu wër. waaw waaw te xam ne incha allah ak waa Ziguinchor ndeysaan Passeman dañuy bàyyi xel. Ziguinchor waa waa waa Ziguinchor. dañuy xel radar bu baax a baax a baax a baax. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. waaw ndeysaan euh, ku ma ci suivre bu baax a baax a baax. mais am ngeen mère surtout waa Boukotan. Ah. maa ngi leen di leen bëgg bu baax. parce que leen xañ mère ñoom tamit. waay dañ leen xañ <laughs> mère. Pa Moussa war nañoo mais dem ci gëstoo defi euh, reportage ci loolu. Ah, comment la population vit euh, sans mère. ndax dégg naa ne ñoom dañoo demoon ci 31 bi. waaw comme ni gars yi di dajalee. pour def ay artifices ñu bañal leen ko. lu tax loolu. gars yi nekk place de l'indépendance di waa waa Mboro dañ doon taal yi pétard. lu tax waa Ziguinchor duñ taal. wóor na taal nañ waaye <laughs> taal nañ. mi def jaay. xam nga pétard xam nga grand mindeef borom japon. <laughs> borom koy nuyu di ko siyaar bi def doo def ba ko ba ba ba ba mais Pape Moussa nañu wax tamit internet ne que il se pourrait que suba aussi ñu ñëw apprécier. radar waaw moo tax de looloo tax ma ne la radar plus mën na am suba. incha allah radar plus amul bis. <laughs> radar plus moom <laughs> amul bis. mu ngoog moom dañuy yeewu rek bàyyi la ñu xel di nuyu waa périphérie. voilà périphérie Jacob Yakuba. kon nag Pape Moussa nañu leen fàttali suba. Mhm. ñi ñu war a càmbara ah, moo wax leen list bi maître El Hadj Diouf. mooy jiitu ah moo jiitu. Rose maître jiitu. waaw moo jiitu kon du am doublon. <laughs> ah. at ah, gaa de moo jiitu ah. non dafa laaj. moo war a jiitu maître El Hadj mu ngi nii un El Hadj Moustapha Diouf. non attends Diouf mukk ci àddina li ma tiim nii ci conseil constitutionnel la bàyyee ko maa la ko kitaabul ñu def ko nii ni second tour de vérification des parrainages ñu def. voici l'ordre de passage des candidats ce mardi. Hmm? yaa ngi dégg. Hmm? ñu ne maître El Hadj Diouf Rose Wardini. Idrissa Seck Rose moo war a jiitu maître. parce que Rose après bi ñu tiiree bu Camara. Hmm. Euh, voilà mais du mu nekk. mu ngi nii. waaw ah yow après boo ko wëree wax nu en tout cas Idrissa Seck. naa topp kaa bi waaw topp kaa bi naa ko topp. sa Seck dinañ ko bàyyee xel suba aussi. waaw Aliou Mamadou Dia. moom 202 ah, la ca Diourbel xam naa peut-être du kii ah loolu sëriñ Mbuub dinañ ko bàyyi xel Pape Djibril Fall également yow am na loo ca waxoon maa ngi ko dànk ah. téye ko ah moomu Lamine Diallo dinañ ko bàyyi xel <laughs> Mahamad Boun Abdallah Dionne moom it dinañ ko bàyyi xel Aliou Camara El Hadj Malick dinañ ko bàyyee xel ah. Mamadou Momar Ngom kuy kooku ah kuy kooku kan eh, El après moom Papa Momar Ngom kuy kooku waaw ah, oh, ah, macha gaay la waaw Aly Ngouille Ndiaye <laughs> di ko bàyyi xel Serigne Gueye Diop ah maire maire dis bi ni mu positionné yow jaaxal na ma. Ah, waaw xam naa mu ngi lay def xel de. Hmm. mais nii la demee. nii la waaw Souleymane Ndéné Ndiaye moom it dinañ ko bàyyi xel Abdoul mbay Aminata Touré ñooñu ci ngoon gi la ñuy jaar. waaw xam nga l'ordre de passage moom boo xoolee ils sont 23. donc suba rek na suba. waaw mën na jeex suba. mën ko parce que mais dama bëgg nga xam ni. Euh, Mame Boye Diao mooy dix-septième Amadou Seck dinañ ko bàyyi xel Bassirou Diomaye mooy dix-neuvième donc boo moytul ci ngoon gi lañu ñu nar a am dix-neuf vingt vingt vingt-deux vingt-trois après Bassirou Abdourahmane Abdourahmane Diouf moo ci tegu Bougane Gueye Dany Amadou Ly ñu jiite woon Akili après Thierno Alassane Sall moo tëj li nga xamante ni mooy mooy mooy liste bi kon kon kon kon kon mën na gaay xaar la daal plus suba ah mën na nekk. Hmm. eh dégg nga fàtte naa. Hmm. suba bal dañuy balancer équilibré affaire yi. waaw waaw waaw foofu kenn ah, orienté wul missile yi en tout cas <laughs> ah, waaw ko. seetaan bi amagul missile <laughs> waaye gis gaay daal ci commentaire yi. ñu naan ana kii ah, ana missile yi missile yi xeebul ma daa en bu may def place damay àndaale casque. dañuy naan la doo éviter Pape casque wóorul doo éviter Pape radar. mais Pape Pape éviter ko radar mu ñëw toog nii. Pape kay xam nga ni ci moom la des. donc gars yi. maa leen ko di dinaa non ah, que ah, ah. foog foog affaire yi leer nag. 2024 la ñu joxoon rendez-vous Pape ñu ngi 2024 Pape gars am signature te nee woon nga boo jugee ci ñoom kenn du am signature. <laughs> te gars am nañ signature ñu ngay dem. te ngay dem par seul moment war a leerul nag. wax nga dëgg. <laughs> daf ne woon gars yi ba pare ci moom du ñu am signature. <laughs> eh Pape. ñëwal Pape Kaye ñoo xam Kaye. <laughs> ñu ngi grand boobu ñu ngi koy nuyu. sérieux sérieux ah, ci di ci profité ah, di jaare. Pape hmm. Alé Niang aussi. oui wax dëgg yàlla. parce que maa ngi koy woo hmm. sànq sax. vraiment pour jébbal ko njaalu. oui waaye toute l' de sans limite. tout à fait tout à fait ci kilifa ci bopp bi ba ci suuf. Hmm, ah ñu ngi ko koy jaal way juróom bu góor. bu wax ni moom moo wàññeeku. Euh, Pape Alé Niang euh, mm-hmm. bokk ci sunu grand. Mm-hmm, euh, mm-hmm. dëgg neex yàlla. un exemple un très grand patriote. ñuy échange quelqu'un honoré la presse sénégalaise Pape Alé vraiment courage. grand la boo xamante ne ñun dañu am respect yërëm paa bi te xare ko jannatul firdawsi di jaale waale en même temps Arona. Arona Niang ak Thierno Niang. Thierno Niang di leen di leen jaale bu baax a baax a baax. voilà exactement. metti na waaye tamit. Hmm. mook dund ñoo ànd. exact euh, donc euh, kooku moom wax dëgg yàlla. Hmm. Euh, Pape Alé ku Sénégal ameel njukkal la. ku Sénégal war a defali hommage la. Hmm. ndax taxawaayam. donc kon lépp lu ko affecté rek. tigi day day doon affecté toute la corporation. maa ngi gis vraiment gars yi ñu bokkal ñëpp ah. ñu ngi koy ñu ngi koy masawu. donc Pape Alé ñu koy masa bu baax ci wajuram boobu di suñu wajur te bàyyee ko fii ñuy ñaan yàlla xaare ko aljana waaw suuf sedd ci kawam euh, te it yàlla may xolu muñ euh, njaboot gi amiin defee yàlla taxaw euh, ñi fi des ñëpp may ñëpp gudd fan ñu fekkee amiin yaa rabbal aalamiin dañu génn jàmm ci le vingt cinq février mm-hmm. ah te Sénégal di des di doon Sénégal bu mag bi ñu mm-hmm. xam Sénégal bi ñu yéene suñuy sët suñuy doom bi ñu ah, ñu delloo mu baax bi ñu leen joxoon. ak ñoom bi ñu delloo nii. Hmm. non non Sénégal bu démocratique la leen joxoon te sagaru démocratie lan ñu bëgg a rendre tamit. waa loolu yëpp dinañ xam. yow am nga ah. baax na le vingt cinq février incha allah incha allahu taala ah, yàlla may ñëpp fekkee ak. tam ba ne ma moom de ko ci liste bi. <laughs> yow dina wax a eh, wax a wax ci loolu ba tey. loolu dina grave Pape Ousmane. mais loolu dina grave. Pape Ousmane. moo tax Babacar mu ngi lay fàttali. <laughs> fàttali ma ko communiqué moom dinaa wax. laay yow kon war ngaa vérifier ji. non faaw ma vérifier. waaw faaw nga vérifier du ma xam ndax maa ngi ci. <laughs> faaw nga vérifier Amadou Ba mu ngi ci liste. man moom maa ngi ci. ah Macky ngi ci. <laughs> man waaw Macky mi ngi ci. non xaw ma de. ah am na benn année gis xaw ma daa fàtte woon carte d'identité am xaw ma daa nekkul ci liste ba waaye voté na de. <laughs> da nga koy fàttaliku mbaa. waaw. ba mu Fatick ca Fatick. Ah, da noonu dafa nekkul woon ci liste bi wala daa fàtte carte d'identité am. <laughs> may voté woon na rek dinaa voté kon. <laughs> waaw ku nekk am nga royukaay. en tout cas merci a été un plaisir. ñu ànd ak ci jotaay bi euh, suba euh, incha kon dañu bàyyi xel laata vingt une heures. ah mun naa am ñu cof. waaw waaw bu ñu cof waaw yaa ngi fële waaw. yaa ngi bërëm bërëm bërëm kii bi waaw. on verra incha allah on va s'organiser on va s'organiser ah. nañ ko bàyyi mu waaw ah. parce que maa ngi gis c'est-à-dire da nga gis gars yi di wax ñii di attaqué ma ne oh waaye ku dul xal premier live fu Ousmane Sonko lu la neex waxal ku dul xalaat premier live am. <laughs> yaa ngi xalaat loolu. lu la neex waxal premier mu génn bu génnee premier live am wow. yaa ngi xalaat premier jour bi génn tamit. wala def comme ni mu naan def di dem ay meeting ak ñoom seen ah. gars yi ñu ko bàyyi xel. loo foog saa yi Ousmane day génn di. ah man par force ma leneen de waaw. par force day génn waaye premier génnam <laughs> foofu <laughs> foofu dina am ñu ma yërëm. ndax la ndax xool bu metti parce que yii nii yëpp saa ba ko yéene tëj nangam bés ba muy génn mu leeral na jeex na nag quoi tu n'as plus les coups de franche pour wax kenn defal lenn du procureur du lenn. Hmm. dina doy waar de bés bu ñuy delloo Pastef récépissé parce que loolu yëpp day am ci 2024. waaw ah. ah bis bu ñuy delloo parce que loo xam ngay wax wala. jàngat ni munul nekk. Ah. non c'est inéluctable yow kan moo ka ka kan moo mën a maintenir Ousmane Sonko à prison fan nga koy nekk. donc day génn bis boobu loolu teeru ba. teeru génn. teeru euh, fan Cap Manuel. ah moom ñoo ñoo waa Pastef xam nañ koy organiser mais loolu moom xam naa ne nañ wut bayal yaatoo yaatoo yaatu yaatu. ay waaye mais te ultérieurement. ñu xam ne politique mënul mën na bañ a yeggati fenn fii on a frôlé le pire dans ce pays là. quand di dugg ci ay considération yoo xamante ne dem na ba wàccu yoonu politique. Hmm. parce que politique c' est l' art de gérer la cité. Ndoye nee na un milliard de vie bu boobaa lay am. Ah, eh, kay saa yi wow wow wow laay <laughs> boobu. waaye <laughs> boobu saa ku ko dul xalaat lu la neex waxal lu la neex defal. <laughs> merci beaucoup Pape Moussa. je vous remercie un plaisir incha allah on se retrouve demain ñu ngi leen di gërëm yéen bu baax. doon ñu bàyyi xel fii ci réew mi ak ci euh, biir tim réew. ñu ngi gërëm aussi euh, Babacar bu baax mi nekkoon ci réalisation bi jërëjëf Babacar Ndiaye ah set loxo mën a liggéey macha allah te bu ngeen ko xoolee ndaw la ah. non c'est un excellent réalisateur. kii def waaw sama compte Facebook bi laa gën a <laughs> Babacar <laughs> jënd réalisateur. <laughs> Ah, il est <laughs> moom beneen bagage la mu ngi noonu en tout cas merci beaucoup on se retrouve demain incha gërëm leen sant leen di leen ñaanal semaine nu jàmm. waaw bu ànd ak tawféex ah, yàlla sàmm leen bu baax jërë ngeen jëf. des lu xew xewu suba bi. fi nekk wër naa ndox ba sonn ndox mu baax te sell laa bëggal sama gan yi. sa jaaxle jeex ak baawu naan bii. baaw naan waxuma butéel bi jongama gi mu jongam waaye ndox mi sell gi mu sell te yomb gi mu yomb baaw naan bi fan laa ko mën a foo dem ci Sénégal am na xam ci grossiste moo xam ci grande surface ba ci sa maa ngi daw uti baaw naan waaye yaay lii lan njëkk ñi ñoo ko ñamal xool baaw naan ak a neex. baaw si na eau minérale naturelle kenn dootu ko jigéen fenn mag ñi daan dem ci àll bi tàllal seen loxo waawe waaye sunu bopp tara ko tala indi nun lu xam ne ay sénégalais noo ko def ay sénégalais noo ko moom kon képp kuy sénégalais wala loo war a naan xaaj moom naan